Je dire d'emblée, discours bi c'est un peu pathétique parce que président la ñëw na di dem mais aussi nañ ko teg dans l'ordre des choses parce que du moo fi jiitu te boo nee président liggéeyal sa dëkk liggéeyal sa askan moo tax donc loo def doo ko namoo da nga naa sama warugar la damay def bàyyi fi keneen ñëw eggali def na BRT def na TER def na yeneen am na yeneen naal yu mu naaloon xaju fi keneen kii ñëw yàlla na ko yàlla may tal ak jàmm di Karim Wade ba mu eggali ko ba indi yeneen ndax kooku moom c'est l'homme de l'innovation. président Macky Sall nag moom wax dëgg yàlla amul leen lu ñuy wax ci moom parce que président la président nag moom munoo wax leen de lépp lu mu def tamit da ngay xam ne moom moo ko war a def waaw ñu bàyyi ko rek comme que toog na li muy toog li fi des ak su néew nañ ñaanal yàlla. saa borom rafetal ko. Macky Sall defar na lépp lu mu war wax dëgg yàlla dañ koy sant di gërëm di ko di ko ñaanal at mu bees mii si barke Seydina moo xam ne yàlla na fi jé jóge ak jàmm. président bu nga xam ne moom war a toog. muy Seydina Ousmane Sonko mu sell mi. moom lañ koy ñaan te xam naa ne incha allahu rabbi bu fi yàlla tegee joxe réew mi dina ko doxal. dëgg la nag ba fi toog léegi yàgg na te fi toog bari na léegi nag au moins ñun ñu ko nekk ba a nekk fii di ko xeebal li mu def. amees Macky Sall liggéey na kenn wëranteeku mais lenn rek mooy catam mais comme ça ni muy protéger aussi tamit nit bu fekkee da bëgg a xeexal yow koo xam ne yow dafa bëgg comme li nga bëgg da bëgg fee nekk di xeex ak moom loolu du mën a sotti quoi. waaw mais moom moom comme que comme que njiit la moom da ngay wax rek di soñu di ko ñaanal ndax njiit moom njiit rek la mën a doon waaw mais moom moom daal xam na li ko war dañoo bëgg daal mu mu daal xam nga ni bi mu bëggee. niñ ko defaloon ba mu falu moom it mu jéem a góorgóorlu jël ko affaire yi teg ko ki nga xam ne mooy xale bu ndaw bi moom ki nga xam ne ñun moom la ñuy toog